السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته நான் இன்னியோவா தொம்மிதாக்கம் சேர இதிகோ teg ci loxol sunu kilifa yi toog Cheikh Mamadou Basir muy sunu kilifa sunu njaatige di sunu joriñ ci liggéey bi màggale na ko ci Cheikh Mamadou Muntaxa mi borom liggéey bi di Cheikhul borom liggéey bi nu ñaan mu yàgg ko jiite yàgg aga yéenam ci liggéey bi man ko àggal ni mu ko bëggee may nuyu bokki taalibe bi fi lay yëpp nuyu bokki bi ci bi yëpp itam ak xutbaa bi ma nekk seetaan xam ne sun dajëb tay bii day daa bokk ci daje yi nga xam ne yu yu yu gërëm la yuñ sant la yu yu ko mat la itam lépp ndax lépp dajëb soññante ci liggéeyub sëriñ bi rek la te liggéeyub sëriñ Tuubaa yi nag benn da ci ëpp taxawal bii bis bi sant sun borom danañ ko sant rek ku fi mase nakal sëñ Tuubaa ko ne gis bis bi nu ko yitteele ñu gis sëñ Muntaxa mi itam nekk gul sëñ Tuubaa di ay jëwriñ ci ay kilifaam mu ci daan taxawee di ko ànd ak yor liggéey bi ba yor liggéey bi sëñ Tuubaa bi di jëwriñ ju mag ji ndax se Cheikh Mamadou Basir mii muy jëwriñam di liggéey bi mu mboolu mi itam biñ ko tëralee ngir ñu taxawu màggal gi sëñ Mahamadou Basir jiite mbooloo mi ci la jël sëñ muy coordonné mbooloo mépp wax fi léegi lim nañ fi commission yëpp wax sëñ Abo mii itam muy secrétaire bi waaye ñoom liggéey bi ñu rafetal ko lool ñu yoon wi nga xam ne ci la mën a tegee ba ba saytu bi mën a am aw yoon ni mu aw yoon bañ mën a taxaw bis bi donte niñ ko wax bis bi moom rëy na rëy goo xam ne taxaw ko ci bu jeex te amuñu lenn luñ xalaat ne lii war na ca mën a dolli ko wala lii <clears throat> bu bu mën a mën a tax mu gën a baax moom faaw mu di ci waaye ginnaaw li ci am solo mooy fas fasub bu xamee li koy gën a tax a baaxal ñëpp di ko fasoo itam day gën di baax di dem rek ndax ginnaaw day day yàkkale fi dem am fa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 ginnaaw noonu moom mënu suñu bopp moom mënu suñu bopp dara te leen bëgg lépp nag mujj gi lépp mooy am ngërëmal sëriñ bi ngërëmal sëriñ bi nag dana ci sàkkoo lin yaakaar ne lu sëñ bi bëggoon la wala suñ kilifa yi di doon wax ne ko wut ci nii bu boobaa nu jaayeen di jëm ci loola bañ am geneen bëgg bañ am yeneen xalaat bañ am beneen gis bu dul xool fi ñu xooloo def li ñu def loo def ko nam gën a rafete mooy tax mu bis bi ak mbirum sëñ bi mu nekk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 jiiteel ci nuyoo bi Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides yàlla fi yàgg te wér di ko teg Abdou Khadim yi nga xam ne moo jiite liggéey bi te nekk ci jataay bi di ko jox nuyoo bi mu joxoon ñu ko xalif général des mourides waaye ñu di jox nuyoo bi Serigne Ousmane mi nga xam ne mooy coordinateur du comité de organisation de màggal gi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 dib taali bépp sëñ tuwa boo xam ne suñu bunt mooy sëriñ abdoulahat mooy sëriñ siiri abdoulahat ñan tek ñu ci ko conseil municipal bi ñu jité bureau municipal bi ak conseil municipal bi ñi ngi dégloo rek lepp lo xam yité la ju jëm ci bis bi lo xam war nañ ko def danañ ko def bu ma sëkk lo xam man nañ ko danañ ko def lo xam mënuñu koy danañ ko wuti def ko waye nak lepp ci ndigal rek lay tënku